xawma kan moo jigul Sénégal sénégalais yi mais xam naa moom Abdoulaye Daouda jàll moom ministre des moom jiguñu bi mu fi nekkee ba léegi ci ay coono rek lañuy ñuy dund. coronavirus bi bi mu amee ak léegi baril du pétrole ni mu wàññeekoo mosul am c'est la première fois vingt neuf dollars. mais prix yi day gën a yokk rek. denrée yëpp ceeb diwlin lépp day gën a yokk ndox mi day gën a yokk courant bi day gën a yokk. mais yooyu dafa jéggi dayoo kooku ki nit mënu ko concevoir mënul ne beneen bi mooy mille milliards yi ñu mobilisé woon pour xeex pandémie bi pour dimbali askan wi mais mille milliards yooyu jot na tey à ce que assemblée nationale reprendre ay activités am convoqué Abdoulaye Daouda Diallo ni mu gën a gaawee pour mu defal ñu bilan ci dépense yi ñu effectué lépp depuis bi mbir mi commencé jusqu'à présent parce que kenn mënul concevoir lii bu fekkee ne assemblée deful liggéeyam comme ni mu waree dinañ def pétition pour demander à ce la lumière soit faite sur les mille milliards qui ont été mobilisés pour faire face à cette pandémie-là